ca Grégoire Gomme Grégoire ban yéenekaay la ñuy tàmbale tey enquête yéen kaay incha allah ñuy ubbi waxtaane diggante Sénégal ak li des ci àdduna wërngal këpp rawatina rek loole di l'Europe bokk na ci ponk ba ñu xëy fësal tey Mélenchon mu ngi ci réew Sénégal seq na waxtaan ak limaanu jëriñ di Ousmane Sonko dil bu bees la nag boo xam ne ah, tey jii ah, l'enquête moo ñu koy ah, fàttali bokk na ci daal coow la ñu fa waxtaane lii di ay base française ci réew Sénégal moom Ousmane Sonko jàpp daal na bu ñu ko xaymaa fii ci Dakar ñoom bëri nañu fi lool ba tax na nag jamono ji ñu war gën a waxtaanee na dooleel ka ñuy dooleel Mali ñii di waa Niger ak Burkina Faso nag duñ leen bàyyi benn yoon ci ginnaaw ci wàllum français yi fa tamit jot nañ ci àddu nee nañ nag génn ci ak euh, na mu waree daal maanaam ànd ceeg tek ak dal loole bokk na ca la ñu jiital Mélenchon moom la mu waxtaanee bokk na ci coowal xaalis mi le nee nag euh, dendu Afrique ak seeni réew dañu ko rek war a saafara nag ni ab jafe-jafe boo xam ne daal yàgg na leen sonal lool France insoumise moom mi ko jiite daal jàpp na daal ni dendu Afrique Afrique daal yàgg na nekk ab euh, lii nga xam ne moom mooy ab bërëb boo xam ne daal yàgg nañ di leen exploité bu ñu sukkandikoo ci kàddu ya ca a yëkkati. beneen ponk bu jotee jib ci lekk waxtaan jàppale ni le quotidien le quotidien moom moo koy sulli ji bokk na ci daal mbirum borom ñaari tur yi foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar Mélenchon ak Jean am bokk na ci daal yéenekaay bi xëy na fàng ci xëta mu njëkk coow dal loo xam ne dafa mel ni ab preuve d'amour la bu ñu war a mën a jagleel ñëpp moom ci gis-gisam député insoumis bile jàpp daal ne yëkki na kàddu yi ci kanamu ko Ousmane Sonko ak ci kanamu étudiant nga xamante ne ni ñoom dafa mel ni daal xamuñu na wax ca toogee ñëpp mabbu daal di caat tàccu bu ñu sukkandiku ci ëttug yeglekaay bi moom ban weñ sax a ko jàpp euh, moom bokk na ci jamono ji euh, la yéenekaay bi euh, di la Dakar waa xëy na fàng ci xëtamu njëkk Ousmane Sonko moom artu na nag xam ne ni ab forme ingérence bu mënti doon daal ci bokk occidentaux yi ci euh, jëm ci question yi nga xamante ne ni euh, ñoom ñooy yu ni mel moom nee na nag door nañu ko mën a xoolaat waaye daal jàppale nag ni euh, moom Mélenchon ba tey ji daal discours am jógu ci benn yoon ci diggante sëy bu ñu war a mën a daganal ci diggante ñëpp foofee ca booru ko université Cheikh Anta bu Dakar ñoom étudiant daal dafa mel ni yëguñu te ñu ñoom ñëpp a jóg di tax ci mel ni ñu xamul wax ja mu tekki Dakar Times moom xëta mu njëkk na mu wax daal moom mooy Ousmane Sonko dalal na Mélenchon mi nga xamante ne ni moom taxaw na nag ngir ñu daal di dépénaliser loolee di mbirum ngóor jigéen mel ni projet ba daal ma ngay jëm ca mbiru ko gay pride jàppaleen daal ni coo moom mooy li nga xam ne ma ngi des di lëmbe ci lu ni mel la tribune moom moo cay xuus nañu jamono ji Ousmane Sonko dalal na xelu ko Mélenchon moom premier ministre ba la mu xam ne daal moom mooy mbirum ngóor jigéen daanaka nangu nañ ko fii ci réew ko Sénégal bokk na ci kàddu yamu ca yëkkati yëkkati bu ñu sukkandikoo ci naataango yi le suñu société xam na bu baax a baax lan mooy euh, mbir mi le te tamit euh, mu ngi koy gere ca euh, na mu waree loolee daal la ci daal di yëkkati moom Jean-Luc Mélenchon nag daal di rek a jëmalaat taxawaayam ci lu ni mel ngir nag gën a aar ñi di waa LGBT bokk na ci tamit jamono ji la mu cay xam na daal moom mooy moom mooy nit ku njëkk nga xamante ne daal législateur la ca réew ko France daal di yóbbu ab texte de loi bi nga xam ne moom moo jëm ci ñu di légaliser proposition yi rek maanaam mariage homosexuel a loole la xam ne ca booru pencum ndaw réew ma alliance la maanaam lëkkaloo boo xam ne daal la xel nanguwu ko loolee bés bi le jour moom moo ñu koy àddul tey jii nii jàpp leen daal ni Mélenchon moom la mu gis bokk na ci ay désaccords yoo xam ne daal maanaam ñàkk déggoo yu radicaux bokk nañ sax la mu xam ne moom mooy mënees na am daal ni benn euh, fan xëy na Sénégal dana ko mës a woote njiital Pastef la mu xam ne daal moom mooy mbirum LGBT bu ñu moyut daal nar na nekk beneen ak coow Ousmane Sonko naan xam ne ni kenn du ko tere daal mu dem ca Paris ànd fa ñaar ci ay soxnaam. direct news yéen kaay la mu xam ne daal moom mooy ah, moom Jean-Luc Mélenchon daal jiital na mbirum ngóor jigéen ci waxtaan wilee na mu fa ñëwee jàppaleen daal ni moom ah, yéen kaay bi tax na daal mu koy fàttali ni daal Sénégal buñ ko xayma ci askan wi ah, juróom-ñeent fukk juróom ci téeméer boo jël daal ay jullit lañ jàppaleen daal ni moom fàttaliwaat na tam ni moom moo njëkk a yóbbu texte bile ca boog l'Assemblée ba ngir ñu daal di dépénaliser liberté d'amour daal jàpp na daal ne ku nekk am nga sañ-sañu ko bëgg ku la neex ak nu doon jàpp na daal ni loolee daal yëkkati ndege ni démb ca booru ko université Cheikh Anta Diop moom jàpp nañ daal ni moom Cheikh Anta moome sax xëy na war na mën a euh, wëlbatiku ca euh, biir suuf sa jàpp leen daal ni euh, fi ñu toll nii desandi na daal jur coow fii ci réew ko Sénégal bu ñu sukkandikoo ci direct news yenekaay ya yeneen ko ponk moom mooy mbirum africanité la lëkkale Sénégal wala bokk li lëkkale dendu afric ak ah, li des ci àdduna bi bokk na ci daal vox populi yéenekaay xëy na fang tam mu njëkk yéenekaay bi daal dañu xamal ne moom Ousmane Sonko nag waxtaane na ca tam ponk yu mën a sulli wàllu ko kom waaye tamit gën ko jëmal ci kanam jàpp leen daal nii moom waxtaane na tam lépp loo xam ne daal moom mooy gën a ah, suqaliwaat réew Sénégal loolee nee nañ nag am nañu continent bi lam leen ci cay inspiré mbiruk euh, plan décennal de gestion des inondations maanaam yorinu ko mbënn bi Sud Quotidien yi nekkaay moom moo ci àdduna ñu nag jamono ji Ousmane Sonko xam na nag ni daañu gën a saytuwaat mbiruk 717 euh, milliards yooyu nga xamante ne ni moom la jagleeloon daal la jumtuwaay yi jëm ci mbiru mbirub saafara jafe-jafe askan wi ci euh, wàllum ndox mi lee l'info ci xoto mu njëkk fàng la fa def rek armateur bii di Aliou Thiam moom nag muy naqarlu daal yenn ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy amal bokk na ci daal la ko waral daal ñu jàpp ne diggante euh, juróom-ñeenti fan ak fukk ak ñaari fan ci weeru euh, mai bi ñu euh, nekk jàpp leen daal ni bokk na ci ñeent ci ay bato yoo xamante ni daal jot nañ leen a arraisonné loole daal waral ni jàpp na daal ni ku ci nekk ñoo war ngaa rek fay te Amadou Ba ak Macky Sall dafa mel ni daal rataxatul benn yoon bu ñu ma daal mbokk dana ca dagg prototype loolee la point actuel ne kaay xëy na fang ci xasamu njëkk Amadou Ba dana nag taxawal jamono ji daal cadre politique am loole pour la république ak Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ni daañu ko topp loole le point moom moo ko wax Amadou Ba tamit dana def a lii di wërwërloo wute nag këru ko diine yi ngir waxtaan fak seen ak kilifa sàkko ci ñoom ay ñaan secrétariat exécutif national bu APR tamit fasal na ab communiqué loole amal ko nag te amaluñu rek ab ndaje ngir rek waxtaane projet bi nga xamante ne ni moom mooy déploiement amadu Ba kon mu mel jamono ji daal yëf leerul benn yoon ci li nga xamante ni daal moom moo ñeel député yu benn bokk yaakaar ci tas tasar gi nga xam ne mënees naa ne le peuple yéenekaay mu njëkk nag ne ñu Cheikh Oumar Anne tas na tasar booru ko njum dafa mel ni daal moom moome eh, te jii la ko fa gën a bëgg ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne daal jot nañu ci amee bokk na ci nag dalal gu am solo boo xam ne rek jot nañu ko dalal le peuple yéenekaay nag nañu moom Cheikh Oumar Anne daal fa mu tegoon tànk teggiwu ko benn yoon ndaxte xam ne na ne eh, xelam dal na ci eh, lool mu mel ni njuum jamono ji ñoom dalal nañ see ak cerno bu ñu sukkandikoo ci le peuple yéenekaay mi nga xam ne tam desandi nag ñun di waxtaane lu jëm ci ci UNR bu Mamadou Lamine Massaly mi nga xam ne daal am na daal la ponkal mu rëy moo xam ne jot na leen a fekk si kookee du keneen ku dul kondeto ñoo ca biir UNR nag moom jamono ci nekk na euh, kii di njiital cadre parti ba moom mi nga xam ne nekkoon na fi daal directeur général bu FNPJ maanaam Fonds national pour la promotion des jeunes nekkoon tamit PCA bu loterie nationale sénégalaise dana nag indi jamono ji eh, xarañte fam waaye tamit valeur yi nga xam ne daal jot nañu ko ko xamale ngir gën a yékki bi lekk parti bokk na ci nag liggéey bu ànd ak pas-pas waaye tamit fulla gu mot sëg yoo xamante ne ni eh, lii la yéenekaay bi xam ne daal ne moom mooy eh, njiit lu yees li ak lamu lamboo ñu wax ci wàllu tàggat yaram stade yéen kaay nañu doomi pendanaar bi di Lamine Camara moom mu ngay euh, des jamono ji euh, di xëcc ñëpp kan moom mooy xaatim loo doomu Sénégal bile bokk na ci daal yéen bi samp na gi ne ab laaj bokk na ci nag ñamu calimtee ji Galatasaray Juventus wala bokk Chelsea bu Nicolas Jackson ay cha li malut yéen kaay xëy fësal ci bésub say ji nii kaw jàmm ak salaam Grégoire ñu ngi jaajëfal. cant ak ngërëm ñeen na jërëjëf Aïcha jërëjëf Grégoire Samba Ngom mbokk yi fàttali leen ni bu fukki waxtu jotee euh, dina dikkaat ci antenne bi ngir rek daal di leen di digtal xibaar yi ci tënk lay doon wala ta boobu dañuy woyal